tamit reportage yi ñuy jagleel yenn ci l'école yi fa mu gën a sore fu mu fi mën a nekk ci mim réew sur les bancs de l'école di jataay bu ngeen di am ci Afia FM ñu fàttali leen ko àllarba bu jot lay doon ñeent jàpp juróomi waxtu ngeen di ci ànd ak Aji Maye Diagne Balde ak directeur Mouhamadou Moustapha Ba su ngeen ci bëggee bokk yéen bokk auditeurs yi mën ngeen a jaar ci 88 628 05 05 88 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu Euh, mbokki rajo Afia 93 point 0 ñu ngi ñëwaat ci sunu émission sur les bancs de l'école euh, on fait un coup à madame Baldé mi nga xam ni moom moo nekkoon sama co-débattrice depuis quelque temps dafa nekk ci ay yitte rek mais yitte yi nga xam ne ci toujours dans le cadre du travail donc ñu ngi koy nuyu di ko ziare euh, di am mbégte aussi di ñëwaat ci émission bi tey nag euh, ñu ngi dalal sunu xarit sunu doomu ndey sunu collègue le grand surveillant général du lycée Sergent Malamine Camara euh, mooy monsieur Assane Gaye Assane Gaye nag buñ ko tuddee xam nañ ko son engagement pour le développement de l'éducation xam nañ aussi son engagement aux côté des des syndicats mais aussi xam nañ son engagement aux côtés de en tout cas pour le développement intégral de l'enfant Assane ñu ngi lay nuyu di la di la ziare. Mm, euh, euh, sëñ Moustapha ñu ngi lay maa de delloo ziar mm-hmm, di la sant di la gërëm di felt di yokk di di wax suma mbégte. ci revenir fi daaw jaar naa fi benn émission sur le plan de l'éducation et sur des des revendications syndicales ça s'est bien passé ren nag da nga ma oo en tant que responsable din école euh, où il y a des problèmes euh, au début d'année où des gens euh, génn nañ joxe interprétation yoo xam ne ñun en tant que personne autorité administrative on ne devait pas dire des choses mais comme que les choses se sont allées ba telle sorte que léegi leer na mm-hmm. on est venu pour donner ay joxe ay tegtal yu leer ñu ñëpp xam affaire nan la demee quoi parce que am na yu bëri ñun ñoo ñun ñooy nekk administration ñoo fa nekk Euh, lu ñu wax retenue administrative euh, déontologie du ñu permettre ñuy wax yenn problème yi dañ koy dund parce que école kër la euh, sa kër bu ñu la joxee ay mbir yaa koy dépense ba yaa koy fexe nu ñu nëpp baaxee ba nga xam ne du am problème quoi mais nag am na loo xam ne boo nekkul ci biir mm-hmm. mën mënoo koo xam quoi en somme voilà donc c'était mon introduction par rapport à à ça voilà voilà merci beaucoup Assane je pense que vous avez un peu anticipé sur les sur le sujet mm -hmm. mais dama bëgg rek euh, ren moom lycée Dakar yëpp daanaka tekk la def. Mhm. yëpp di dox. Mhm. mais ren moom bu ñu tuddee lycée sergent Malamine Camara rek te gars yi gën ko xamee ci Limodag. Limodag wooy wooy voilà mu nekk fii ci ah. ginnaaw stade bi. waaw di desservir beaucoup d' écoles élémentaires yoo xam ne seen doom yi yi nekk Parcelles Assainies ak Grand Yoff foofu la ñuy yónnee xale yi. Mhm. mais ren daal mu am coow. dama bëggoon xam nag coow lan la lan moo koy. Euh, monsieur Ba merci damay commencer historique ne euh, vous avez Parcelles Assainies mm-hmm. euh, arrondissement Parcelles Assainies ni ko gaa yi déggee dafa yaatu mais boo xoolee au fond on nag que quatre lycées au au au niveau moyen secondaire mm-hmm. bon li ma dakk mooy jël moyen secondaire mm-hmm. Talibou Da Talibou Dabo. moyen secondaire mooy. day am sixième ba troisième ba ba terminal ba terminal voilà euh, kii Talibou Dabo mhm. moom tamit mooy secondaire day jël sixième ba terminal mhm. Aminata Sow euh, kii euh, comment Aminata Sow Fall mooy Padois Padois mhm. moom tam mooy secondaire lay jël seulement LPA 14 13 rek moo fi nekk secondaire moom de la seconde à la terminale ñoom ñoom la ñuy jël vous savez voilà maintenant nag lu xew ren mooy xam nga ñun euh, euh, boo xoolee li ma rek il est en deux mille en deux mille six. Mm-hmm. mais ba tey on a des problèmes de salle boo xoolee on a trois bâtiments. Mm-hmm. tout chaque bâtiment niveau un niveau deux fu nekk quatre quatre muy douze. douze fois trois muy trente six. trente six salles. trente six salles la ñu mm-hmm. am en tout. six salles la ñu am pour le lycée. Voilà. par pour, contre euh, la sixième à la terminale. waaw on a trente six salles. trente pour certains stades là ce qu'on appelle euh, classe physique. Mm-hmm. pour les classes pédagogiques mooy xale yi classe bi ñuy jàngee on en a cinquante deux. cinquante deux stades on en a cinquante deux voilà. cinquante deux classes pédagogiques. Euh, voilà mooy. classe yi nga xam ni. Mm-hmm. constitué ngeen ko. bi mm-hmm. ngeen jëlee élèves yëpp ngeen dugal ko. Euh, voilà yu sey ba sem ba ba ba non maa ngi ne sey. sixième sixième ba terminal ba terminal. cinquante deux classes. cinquante waaw euh, cinquante voilà. kon kon léegi boo xoolee ñun. boo jëlee cinquante deux moins trente six. Hmm. am na ñaata classe yu yu yu flotté. am ngeen euh, à peu près seize seize voilà seize waaw léegi dama lay jox effectif yi. Hmm. balaa may ñëw boo boo xoolee euh, actuellement suñu effectif cinquième hmm. on à trois cent trois cent quatre vingt dix huit. loolu lan la cinquième euh, cinquième waaw. quatrième on à deux cent quarante. troisième on a on est à deux cent quatre vingt quinze. seconde on à mille trois cent quatre vingt treize foofu nag naa fa taxaw naa fa ni fa la problème bi jógee. mille trois cent. Euh, 83 élèves. Mm -hmm. En première, on est à 636. Mm -hmm. En terminale, on est à 670, ce qui fait un total de euh, 673. 600 3674 ma gën a 53 doublants yi nga xam ne dañ leen war a orientawaat. Mm-hmm. léegi actuellement au lycée on est à 3661 élèves c' est beaucoup. 3621 euh, élèves waaw 621 élèves c' est beaucoup. et vous savez même cette année. en vue de euh, rendre l'enseignement non non balaa ñuy dem foofu mais yéen à peu près moyenne bi par classe ñaata la moyenne par classe euh, avec euh, le fruit des parce que on avait onze secondes on avait cinq secondes en en S mm -hmm. en en L, en L mhm. léegi bu ñu réorienté élèves yi bu ñu defee moyenne bi on avait cent vingt par classe parce que ren xam nga avec le Covid les élèves ont passé avec huit huit neuf ak huit cinquante. Mhm. ce qui fait qu'on a beaucoup de redoublant. Mhm. ce qui fait que bu ñuy envoyé mille cent quarante sept élèves. Mhm. on se retrouve euh, trois mille trois cent quatre vingt trois léegi boo jëlee classes yi. mille quarante sept la ñu yéene woon ren. voilà mille cent quarante sept élèves la Dakar euh, IA IF passé Asseni on a eu mille admis ñu envoyé ñi. 1147. mais am na 500 il reste mais yooyu fu ñu leen yóbbu. non yooyu malheureusement euh, problème buy posé moom mooy Padois mënut a jël lu ñaari classe oui. Euh, daaw bon ce problème là daaw la amoon. daaw mais attends attends de l'unité 7. waaw Ibrahima Thiaw. Ibrahima Thiaw. ba ba ba ba Escart Urbam. waaw waaw. mais y a assez de collège quand même yoo xam ne moom la jël xale yi. non non dama la wax problème bi non bul jaawale je je parle des élèves orientés en seconde. en seconde ok en seconde. d' accord waaw fa la problème bi waaw waaw élèves en seconde yu yu yu ñuy indil. Mhm. léegi bu ñu defee rajo par classe on se trouve avec 120. non ñaata la ñuy yónnee euh, seconde. 1147. mooy seconde yi. waaw voilà seconde yi. seconde yi 1147 la ñuy indil. léegi euh, euh, l'EF avait prévu de nous envoyer quatre cent élèves. Mhm. quatre cent élèves moom par cent la doon enseigné par année par le cent quelque moo fay nekk par mhm. par année. mais ren bu ñu indilee mille cent quarante sept élèves yi on se retrouve avec des classes de cent vingt par classe cent vingt par classe. xam nga loolu euh, pédagogiquement sax mun ta nekk. déedéet daaw sax daaw avec sax cent cent élèves yi je remercie les professeurs de Limonac. Mhm. ce sont des professeurs qui, qui assure la qualité parce que boo xoolee ñun actuellement boo dee ñëpp euh, actuellement au bac on est à 58 pour cent. ok euh, à part les grandes écoles qu'on appelle les écoles d'excellence Mariama Ba ak euh, Diourbel. mais c'est pas c'est pas évident. moo moo tax on leur rend un grand hommage. Mm. même gis nga daaw avec les effectifs de cent yu amoon daaw benn prof génnul wax dara parce que daaw on a cent effectifs léegi je remercier l'IA tey sax IA laa jógee dañoo benn marche pour xeex violence ci école yi xam nga depuis daaw gis ngeen violence dafa xewoon mhm. euh, Frasca jaar na fi mhm. élèves yi école tëj ñi yàq seen euh, euh, seen kay yi mhm. ah ak di attaquer prof yooyu yëpp dem na ba jàng Sénégal jàll ka joxuñ ko gëddam mm-hmm. ba tey yaa Xarijatu euh, Diallo tey dafa o proviseur rek école yëpp ñu def benn marche mm-hmm. wane nit ñi ne euh, ah, élèves ak yi ñëpp wane ne mm-hmm. affaire bi neexu leen que engagé wu ne ñoom nañ fexe léegi jox cër enseignants yi yu leen di jàng xam ne seen avenir ñoo ko ñoo ko assuré voilà ma revenir ci problème yi yu ma waxoon nga léegi avec euh, daaw après instant nos classes étaient à cent léegi digg mois de janvier ci la IA def ay natif yu bëri bañ bañ eggali Talibou Dabo lycée bu bees. waaw ma ma yóbbu fa. ñu éva eh, ñu ubbi fa 163 eh, eh, boobu ñu ngi woon à mille ñu ñu ñu léegi ñu am effectif 1000 de 320. mu des mais mais mais ba tey classes yi nga xam parce que classes S yi wàññeekoon na ma mais classes yi L yi ñu ngi 87. voilà léegi la problème bu problème buy buy posé gis nga euh, à à li bu ñu xëyee suba di jàng 36 ñooy jàng. plus de seize classes ñu ñu ñu ngi ci biti mm-hmm. EPS dañuy def cours cinq bon buñ boo jëlee EPS dañuy def cours nañ am quarante classes mais yëpp boobu moo tax boo doon bëlee ma dak da nga yaakaar ne gars yi jànguñu or booy dañuy xaar pour dugg ci classe yi pour dugg ci classe yi parce que tellement dañuy bëri ci góor dañuy bëri bon <laughs> depuis daaw waxoon nañ ko mm-hmm. mais malgré tout xam nga gars yi moom euh, administration moom tant que gisul devant le fait du réagir mm-hmm. mais ren bañuy bañ bañ affaire ñu wax leen ko ñu analyser malgré tout nag IEF euh, moom daf ñu mujj daf ñu envoyé préliste la ñu envoyé woon mais euh, waxoon nañ ko carrément euh, bon l'IA joxoon na pour gars yi bañ a indi ay ay élèves mais damaa la damaa luy exister nga xam ne avec ça cent vingt élèves moom. Mhm. jàng munu faa am. c'est mhm. très drôle la. Mhm. l'IA a a a a décidé de de de répartir ces élèves la yóbbu leen élèves yu yu dëkk 26. yan yan élèves la élèves yi yu ñu orienté wu ñu ñu bëggoon orienté foofu. def ban classe. yóbbu sixième sixième. yu yu dem sixième yi rek. waaw voilà c'était ñaar lañ woon. c'était 400 la moo fa doon ñëw. waaw jël carte jox jox jox nañ 19. Euh, mhm. jox jox nañ jox nañ 20 jox nañ côté Grand Yoff yi itam. Euh, euh, c'est ça ngeen tas ngeen tasaan leen ci yeneen parce boo xoolee lu gars xamul li daal dina ne pas beaucoup de de passé parce que il faut traverser. Euh, la route pour nga ñëw jéggi Mixa. Mhm. élèves dañuy jégg point ñëw ñu nekk vingt cinq. kon ñun ñu gars yi alarmé wu suñu gars man je suis je suis un syndicaliste. Mhm. je suis de l' mhm. chaque fois sax dañuy dañuy orienté élèves ay Lamine Gueye. Blaise Diagne les parents viennent ñu leen di jël. classe yi gonflé parce que ay temps da ngay xool ay élèves yu bëri c'est douloureux. élèves bu jàngee euh, Lamine Gueye Blaise Diagne bu ko fay 1000 francs passe du.

c'est techniquement c'était pas possible que qu'on ait des bon actuellement j'ai euh, j'ai pu recréer d'autres benn seconde bu ñuy wax SF ak ELF mais classe ba tey mu ngi 100 est avec 100 élèves mu ngi am qualité te te d'autant plus que bon dafa am lu bees xam nga léegi dafa am lu ñu appelle les phares. Mm-hmm. pro euh, progression harmonisée et des épreuves euh, euh, éval kii des épreuves. des standardisées mu ñuy wax phare. Mm-hmm. phare boobu par rapport au PSE de l'État. Mm-hmm. dañuy créer benn paquet. waaw programme d' éducation qualité boo xam ne éducation formation 2018 2030 dañ bëgg léegi euh, rendre l' plus attrayant. Mm-hmm. comment faire parce que xam nga enseignement dafa war am contrôle. Mm-hmm. dañ doon bàyyi enseignant bu nekk rek mu nekk kaasam def lu ko neex. Mm-hmm. boo évaluer mais léegi dafa am ñetti niveau. yaa su ko qu'on appelle le niveau établissement. donc les premiers débats sont conçus par les cellules de l' école. c' est ça qui l' évalue. foofu naa ki taxaw ñun bu ñuy évaluer sax dañ doon tas yi. surplus surplus euh, euh, seconde LA surplus seconde LB da ngay mujj tas classe yi. pour euh, pour nga mun a évaluer. waaw une classe de 87 élèves. waay 70 élèves 90 élèves 100 élèves da koy tas. Mhm. gis nga coono gu ñuy am. Mhm. te dañuy dem ba yàgg sax dañuy am problème surveillance parce que prof yi boo ko tasee. Mhm. am na heure yoo xam ne amuñu cours. nga am ay ay surtout les semaines yu feebar nga am da am problème gis nga foire yooyu xam nga au niveau établissement premier débat bi ko organisé. nga kon yenn classe duñ jàng gis nga yenn classe yi nga xam ne ay nomades lañ duñ jàng gis nga on peut bu ñuy bu ñuy mm-hmm. léegi boo ñëwee encore tam deuxième devoir bi mm-hmm. dafay nekk au niveau euh, mythe au niveau mais deuxième par c'est par semestre euh, ou bien par boobu yaa koy organiser mm-hmm. mais c'est les yi ñoo koy ñu ñooy propositions ñu évaluer ko d'accord léegi bu ñu ñëwee nag euh, niveau académique nag composition yi lay lay gérer defar ko épreuve yi te xool ko ñun bu ñuy composé bu ñuy composé par niveau <laughs> classe yi ba duñ jàng ah. parce que boo jëlee par exemple moi j'ai douze secondes treize secondes bu ñu ko ñaata treize secondes mhm. bâtiment douze la mhm. donc te bâtiment yooyu dafa amoon sax ay sixième yu fa doon nekk di jàng xool nga mooy mais foofu foofu c'est moyen quand même dina am boobu di ngeen ko mën non non non du demee noonu parce que euh, boo jëlee classe yi ñun soo ko pour ñu mu génn xam nga les enfants ay xale lañ bu ñu ñëwee dañuy jël quatre secondes def ko fixe jël ka jël sixième yi def def def leen fixe mhm. yeneen seconde yëpp di di di di tourner mhm. c'est difficile parce que bu njëkk dañ doon bàyyi xale yi tourner mais xale yi avec leur Euh, euh, âge voilà perturbation yi dafay bëri ci classe ci école bi coow bëri mhm. c'est pourquoi et puis xam nga surveillance bi dafa dafa metti xale yi dañuy indi bruit mhm. premier deuxième troisième te xam nga boo yenn yenn agents yi mënuñu yëg ci kaw mhm. parce que souvent les gens comme surveillant sont des gens au bord de la tête qui sont un peu âgés <laughs> waaw waaw lool loolu la duñ mën a gérer yenn euh, gos yi seen seen seen c'est ça seen rythme seen ñuy doxee waaw seen seen loolu daal moo indi affaire bi bu mu xewee nag. Mhm. gars yi dañ mën a yoot génn élèves. ñun ñu waaw parce que loolu bëgg naa ñu ñu taxaw fa tuuti. que gis nañ leen ci télévision bi. waaw waaw pareil taxaw di ñaxtu. waaw dinaa li ñuy def ci école bi c'est pas normal donc lii la rek situation bi. lii la bi lii la. waaw situation bi mais yéen. vous hmm. avez essayé de régler ça à votre manière quoi. voilà voilà loolu la. loolu la voilà mais aussi avec la complicité en tout cas du boo complicité sax mais c' situation boo xam ni. Hmm. peut-être euh, les autorités académiques jàppale nañ leen ci quoi pour ngeen mun. oui gis nga parce que normalement. Hmm. quand on est dans un cadre organisé on peut pas faire n'importe quoi. non non mënul nekk voilà mun leen toog rek la demande. c' est ça. on n' sax que dina aboutir parce que. xam nañ ne euh, euh, euh, parcelle dafa manqué école. Mm-hmm. parce que boo xoolee parcelle y' a ce qu'on appelle le CM 19. Mm-hmm. moo nekk 19. 19 waaw CM 18. CM 20 yàggul. waaw ah, ah, Ibrahima Thiaw. Mm-hmm. Oh, oh, Ibrahima Thiaw foofu bu boo jëlee foofu jeex na nga dem Cambérène 1 nga ñëw fi am Ibrahima non Ibrahima ah, waaw nga am Padois. nga ñëw fii CM Yoff HLM Grand Yoff ak SA Imban. Uh-huh. jeex na loolu moo am ci IEF Parcelles Assainies parce que boo xoolee souvent les gars xam que parcelle euh, euh, euh, l'arrondissement de Parcelles dafa am quatre communes commune parcelle bu Moussa si jiite commune Padois commune Grand Yoff commune Cambérène mm-hmm. et pour ces quatre communes de ak à forte densité de population y a que quatre lycées lu ñu en état sax boo ñuy orienté yu jóge Cambérène dañuy préféré delluwaat.

te tu as la moyenne de neuf cinquante fii BFM. Mhm. boo boo amul loolu boo amee dix dañ lay orienté. Mhm. léegi dossier bi dañ koy def boole ci eh, eh, bulletin bi. Mhm. bulletin extrait ñaari bulletin deuxième semestre ak boole ci eh, extrait envoyé ko commission bi commission bi dafa am benn benn kii bu ñuy wax semaine. mais si loolu la ñuy liggéeyee léegi. c'est ça semaine boobu lañ koy envoyé gars yi dem xool profil enfant yi envoyé enfant yi selon seen vœu un vœu deux. voilà am na enseignement prof am na enseignement technique. boobu moom il faut avoir douze pour nga dem euh, bu ñuy wax S-Tech mooy GRG. waaw nga dem S euh, S3. Mhm. technique f yooyu ay mooy euh, école ay Limaamu Laay. ay de la Fosse mhm. yooyu la mais parents yu bëri. dañu dañ duñ ko méconnaître même avec responsable école yu bëri. Mhm. dañ koy làq parents yi tu vois après orientation parents yi ñëw naan ma suma doom am na ba fa ma ne non ça c'est boo xam ne ñu ngi koy def. à partir du juin bu ñu paree avant juin BFM bu paree lañ koy asséminer. Euh, avant boobu ñuy oote bu bu ñu na joxe. résultats yi ne lii lañ indi lii lii lañ indi. voilà mais mais les écoles privées oh, oh, mm-hmm. la n'est-ce pas. loolu la mm-hmm. c'est ça voilà loo moo tax bu mu amee. Mm-hmm. gis naa ay enseignants comme ñu génn mais un enseignant est-ce que dina dàq élève ñun sax on fait en que même. moins de passagers état bi da ko sax depuis Covid bi xam nga ne année Covid métti na. su ma la waxee ren y a une demande sociale il force des gens qui étaient dans le privé qui vont aller dans le public. mais parce qu'ils ne peuvent plus. ne ñun sax malgré amuñu effectif on est obligé d' organiser benn test pour jël ay 4 5 fu nekk. Mhm. parce que c'est douloureux Sénégal métti na mhm. actuellement beaucoup de parents qui étaient dans le privé on peut dire leur job pendant le Covid bi. métti mhm. da ngay mujj xam nga ñun amuñu vocation sax ñun duñ di génn élève mhm. kuy jël élève di jàngal élève ay at doo génn élève mais am na benn seen classe bu ñëwoon sama wax turam mhm. ba ma ñëwee ba ñu wax xam nga suñu doom maa ngi xam suñu doom yi lan la moo tax ñuy échoué mhm. moom doom fa la jaar mu ne ma condition yi dama ko profit trop mais classe su quatre-vingts élèves cent élèves profit di ko jàngale surtout au moyen sax moyen nga xam ne ay profit dafa bëri profit bon daaw parce que pendant covid bi ñun suñu profit ba dañoo feebar ah. ñun dañoo feebar parce que li moo dag c'est un peu dur ah oui une forêt comme aime dire un de mes d'amis Dieng enseignants yi da malgré ils sont mais dañuy feebar ah dafa métti ah bien sûr métti mais euh, par contre damay remercier euh, suñu euh, proviseur Koumba mhm. Niang madame Niang Koumba ba mu ñëwee ba tey ñun on avait déployé table banc yow mii benn année may nga ma table banc <laughs> waaw waaw ma dem madame 24 Mm-hmm. madame moo la remercié c'est une madame Ba mm-hmm. may ñu table ban mm-hmm. ma dem monsieur Seck may ñu table ban ñu dem 26 ñu am lu ñu jox boobu amuñ table ban ba profité dañu waxoon dañuy génn te xam nga école amul xaalis xam nga ren sa am na lu ñuy wax écussion booy ñuy wax ne dafa seet écussion yi dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw voilà problème table ban yi ñu amoon année boobu noonu lañ ko résoudre dem ah. gars yi euh, ay carcasses ñi ñi réparé. Mm-hmm. xam nga euh, dafa am ay compétences dévolues à l' école. nekkul école bay gën table ba. Mm. c' est c' est un pouvoir régalien c' est l' état qui doit équiper. Mm-hmm. équiper les écoles. ñun euh, ñun on on gère le volet pédagogique. mais yéen yéen seen lycée bi mais seen lycée bi. polariser au moins. au moins lu bon bon trois trois mairies wala quatre mairies sax. waaw ah, quatre mairies bon mun nañu génne mairie Patte d'Oie sax quoi. Ah, comme ah. Patte d'Oie am na lycée. Mhm. mais yéen yéen a polarisé euh, la mairie de Parcelles Assainies. Mhm. une partie des élèves qui viennent de Grand Yoff. Mhm. et une partie des élèves qui viennent de Cambérène. mais xa mairie yooyu ñoom lan la ñuy def. non malheureusement nag bu nekkee lycée xam nga ñun dañoo hybride. ah lycée dañoo bu nekkee am nga moyen secondaire rek. mairie géré wu la. mais c' est la mairie de Dakar c' est la ville c' est la ville de Dakar qui qui nous gère maintenant. les eh, bon ville bon ñu ñu ville jox nañu ay agents. ay ay agent agent booy agent yooyu ñoo gérer sécurité bi euh, mairie envoyé nañuy infirmier mm-hmm. mairie envoyé nañu ay agent informatique yu ah. dimbale ba léegi ci ci ci ci ci ressources humaines waaw ressources humaines waaw mais ressources nag léegi saa bu école ubbee ils nous donnent des fournitures mais fu ñu ñuy joxe moo tax ku nekk dëgg ngay am ñaari kay ngay am. c'est mani mani fourniture yi sax parents yi nañ ko jënd ba mu doy. waaw waaw. fourniture yi c'est vrai que ça fait c'est un intrant un intrant important. Mm-hmm. mais yéen tablement je crois que école moom lañ gën soxla xanaa mairie grande ville moom mënul xam ni que yéen loolu ngeen gën soxla. mu dugal leen ci non euh, monsieur Ba euh, table banc ça coûte trente cinq mille. mais après. trente cinq trente cinq mille bon est ce que est ce que est ce que mairie yi mun nañu ko jënd. mais trente euh, bon euh, euh, ñun daal bu ñu leen portable baa ngi Bécaye Diop qui est décédé. joxoon nañu ah, euh, ne waxoon nañu jox table banc waaw directeur mais malheureusement il décédé mm-hmm. ce qui a fait que gis nga xam nga on a benn CM en caution ba tey mu bloqué mooy le le CM 21 la daaw sax am na table banc yooyu la gars yi mu joxe ci école parce que am et puis les gosses et puis euh, ba tey mooy sant naa la wax dëgg les gosses sont très disciplinés mm-hmm. laissés à eux ñooy kese table banc yi xam nga table banc bu élève bon dañoo bëri xam nga ñun bo on a une forêt booy dañuy <laughs> dambu table ban yi yaa tout munoo gis dara sa présence booy ay temps dañ doy waar léegi table ban yi noonu noonu la ñuy yàqoo ngay defar miir bi daanu ngay defar te ñun on a une école très vaste mm. à entrée bi dafa yaatu mm-hmm. booy même malgré on a des des qu'on appelle des gardiens très mm-hmm. mais dafa doy waar mm-hmm. si école bi temps yi rek Euh, fekk nañu fa ay yàmba parce que xale euh, euh, bandi yi dañuy de mur bi côté côté stade bi dugg mhm. dafa école bi amul lumière mhm. bon keroog maire Dakar ñëw na fa ne nañ dafa lumière mais jusqu'à présent li ma tax instant kenn ñëw fa dugg mhm. ci gannaaw dafa dafa dafa yaatu dafa lëndëm dafa lëndëm il faut que l' état nous aide def fa ay làmp parce que on a deux gardiens yoo xaw a dafa fa nekk mënuñ ko gérer kenn ki mag la kenn ki jeune la parce que foofu moom même su man su ma grand bi sax bu timis jotee bu sënga jotee dama koy tëj j'ai peur que euh, de quelque chose ñëw dugg fa loolu la oh, moom on a on a des problèmes moo euh, euh, je ci affaire yi kii affaire yi élèves yi ñun ñun ñun nii nii le censeur nii le proviseur Koumbagna nii Assane Gueye nii quelconque ñun mënuñ génn ay ay élèves mm-hmm. mais nag ñun on se bat pour que enseignement qualité am fa ci mm-hmm. nga li ñuy def nii Elaadio bu ñu demee ba affaire bi eh, nekk liste rek ba ba ba effectif yi réduire. Mhm. booy ñoo réussi parce que boo xoolee. ren ba effectif xaw a réduire. <laughs> est-ce que mun na nekk c'est un rêve utopique ah. Assane yow da ngeen bëgg dàq élèves yi kon. un rêve non non non non eh, non non non non je je a des effectifs. ñu am. Uh-huh. c'est un peu difficile. pour les uh-huh. terminales. waaw ah, nga am soixante cinq. Mm-hmm. soixante deux. par par classe. par 65 waaw 59. 66. Mhm. Mhm. terminal L. Mhm. nga ñëw ah mais attends attends ça c'est c'est des effectifs normaux ah. dans non non terminal la de. terminal la kay terminal la lay wax kay. ay 66 j'ai vu j'ai oh, oh, vu j'ai oh, vu c'est la même chose euh, au lycée Lamine Gueye. Euh, ils ont les mêmes effectifs. donc par contre. Hmm. ay ay ay secondes. nga nga am ay ay ay ay effectifs 87 90. non non loolu moom gàddu woon. ça ça mënoo ko mënoo ko. boo boo waxee dëgg. boo boo waxee dëgg xam nga sax dañuy wax. non non wuy ma wuy ma Assane. waaw waay yow lan nga yaakaar ni moom mun régler problème. non actuellement bu ñu xoolee population accroissement population parcelle. il nous faut un nouveau lycée. am na am na ay piste. il faut un nouveau lycée soit ñu élever ay CM. Euh, en lycée par exemple par exemple la CM bi am na ay quelques ñu tëj. boobu lañ ko exil loolu daal gis naa ne CM HLM bi HLM Grand Yoff foofu am na condition yu bees am na fa classe yuy flotté mhm. kooku daal bu ñu ko defoon lycée en bu bees ah dina xaw a atténuer mais ça par exemple mais nag malheureusement au Parcelles Assainies amatul parcelle amatul ah, amatul terrain à part terrain waa équipe yi jubóo waa équipe Moussa Sy bi mais aussi on a besoin de ces terres là pour le man non no non non non attends moi je pense que lu ñu mhm. def PA 14 transformé ko en lycée je pense loolu la ñu war a def pour mhm. vraiment jël beneen école élémentaire aussi ñaar yu jegewoo ñu jël benn bi ñu def ko comme ni def comme ni ñu def vingt et un mhm. euh, mhm. jël y a deux écoles malgré tout on a essayé de faire de créer un collège à l'intérieur je pense que loolu mais la solution moom daar daar mooy fu ñu créer benn benn lycée waaw ah, mais mais xam nga loolu nag ay étatique la. voilà yaa euh, euh, dafay mën a wax euh, éducation nationale ci par rapport ñu defal budget ñu ne Dakar lee fi xaw mais xam nga lii sax. ni ñaa ngi ñaxtu. mais lii c'est un solution. Uh-huh. ren ñëpp dégg nañ li ma dàkk ku nekk ab nga dem nga. ñëpp kay waaw loolu la dugg télé yi wax. wax mel ne ñun te xam nga man mu fa nekk sax ñëpp xam nañ ne man. non man gis naa gis ah, naa ah. benn parent boo xam ne dafa doon ñaxtu di di kaas ma ni. mais man lii Assane il faut mu ñëw mu. ils sont venus ils sont venus mm-hmm. quand ils ont dañu ñu wax na ñoom sax nañ fexe léegi eh, ak situation bi dañ Sénégal si ébani mu ne ma lii situation bi xam ne li ngeen di dund pour 52 classes vous avez 36 classes pédagogiques avec des effectifs là comment vous faites pour avoir des résultats ma ne ko loolu nag moo tax ñëpp bëgg fee ñëw ñëpp bëgg fi seen doom. donc ils ont ils ont euh, compris. waaw parce que boo xoolee les euh, je vous dis en ligne dak y a des fils ay magistrats ay gars yi de haute espèce mun nañu fay ay nekk ENA ay gars yi ay ay a ngi fa ah. ay li ma dagg euh, am na ñoo xam ne ils ont de payer mais su y a des gens qui croient à l'école publique. c'est ça man souvent damay wax sax. ni mm. privé amul man damay wax souvent mm-hmm. que euh, euh, le privé qui fait des résultats. Le, c' est le public dans le privé parce que suñ suñ gars ñooy dem ay temps di defi cours foofu mais boo amee bu nga a compétence avérée des profs qui sont avérés qui qui, qui maîtrisent leur matière qui mhm. savent dominer ñu ngi public bi. Mhm. résultat boo xoolee sax déjà sax même à l'université ce sont produits publics ñu ñu ñooy perforé. souvent gars yi jógee privé dañuy dem dans dans centre de formation parce que dañuy xam nga ce sont des gens IP. Mhm. mais euh, élèves bu ñu formé public. dans dans les avec les compétences le savoir savoir faire savoir être mu génn am toutes les compétences requises bu demee de enseignement supérieur dafay réussir. loolu la loolu pendant aujourd'hui au bac. Mm -hmm. euh, le, un président me dit mais Gaye, vous la vos notes la sont très justes. Mm -hmm. Je vois que dans votre école là. Oh, le premier jury mu ne ma euh, par rapport ak yeneen notes yi ñuy joxe. ñun dans notre école les gens donnent des not objectives. foofu kenn du la joxe élève note boo xam ne pour élève bi jàll. nee na si si on était plus relevé que ça avec la moyenne de cycle xam nga léegi bac dafa am moyenne de cycle. moyenne de cycle dañuy dañuy dañuy jël moyenne. Euh, seconde seconde seconde. jël moyenne nu euh, première jël moyenne ni premier semestre ak deuxième semestre divisé ko par 4 muy la moyenne de cycle léegi si l'élève a une moyenne de 12 au niveau di benn mention da koy dimbale pour repêchage ba mu jàll premier tour te xam nga loolu xam nga xam nga loolu euh, euh, yombul am bon peut-être que booy bu nekkee amoo 12 ba 13 14 seconde day xaw a 10 terminale day xaw a 10 mais souvent il y a des gens du ma wax du ma cité kenn qui jouent avec les notes des des mais fële y a la tout élève qui a euh, euh, des notes il le mérite et léegi je vous remercie l'état maintenant am nga léegi sax ñun sax dañoo am semaine semaine mooy système d'information de maanaam l'éducation nationale léegi da nga am yenn yenn boobu euh, nga gisee say notes prof bu nekk da nga am lien li prof lien boobu laay ubbi dugal notam mu ñëw si ñun ñu dañuy généré xale bu ñu dugalee not bi am na doo am na am na am na temps xool pour ji xam prof bi ne monsieur Ba da ngaa da ngaa suma note mm-hmm. kon xam nga loolu léegi transparence la c'est vraiment clair am na boo xam ne dañuy nëbbu seen note nag bàyyi ba xam ne situation dem quand on léegi euh, déwén sax incha allah si on a bon ñu ngi am tuuti euh, dañu manque personnel mais déwén bu ñu amee temps j'ai fait j'ai fait en les parents am seen compte parce que euh, parce dafa am compte Euh, planète planète euh, euh, enseignant établissement am planète établissement uh-huh. am planète parent am uh-huh. planète élève ku nekk sa code ngay duggee uh-huh. côté par exemple man su ma su ma code bi daane code identique mais élève bu nekk da ngay am sa sa IN IN moom dafay nekk ay x y pt moom nga dugal élève bu duggee day gis léegi même si l'élève absent si le prof mentionne parent da koy gis mais élèves dañ ko euh, euh, bon élèves yi élèves waxuñu ko parents yi moo tax ren boo gisee on a eu moins de problème pour les bulletins daay am nag ah. mais ren vraiment à Limodac on a eu moins de problème j'ai vu que j'ai vu que dañoo dem ci voilà voilà voilà pandémie on a on a travaillé sur ba que léegi boo yu bëri xam nañ seen situation par rapport à leur portable c'est une innovation boo xam ne ay temps dañu bëgg di sa sànni sànni sànni euh, xeer état deful dara mais là ce sont des milliards parce que c'est un logiciel qui concerne les grandes écoles de Dakar ah, ak quelques écoles de euh, de l'intérieur intérieur mais nag il faut un bon une bonne connexion et il faut une des personnes très outillées mun ci liggéey mais vraiment euh, mu nga déteindre ci non avant avancé la loolu avancé la avancé notoire la quoi semaine voilà ok en tout cas ren moom yéen moom ren moom yéen a jël. kii bi quoi yéen a jël a jël palme fii ci Dakar. non xam nga gars yi dañuy ne amalgam xam nga ñu bëri dañ bon di naan Kumba Ñaa moo moo fa. mais Kumba Ñaa est une autorité administrative. moom il constate un fait par rapport à à à son uh-huh. mu wax ko. c'est l'autorité a décidé. man Assane ngay man ke loolu laa wax souvent eh, ay eh, parents yi dañu ñëw seen am problème seen doom bu ñu daax ñu sojee man la man mun naa dugg élève mais mënuma mënu mënuma génn élève c'est ça man la mun naa dugg élève muy muy jàng mais élève bu génn mënutuma dugg parce que élève bu bu jàngu ba sa ba sa note génn la amatul ama amatoo mu kenn mënut yow dara te booy yi duñ duñ booy yi duñ duñ def benn effort ba pare seen parents yi duñ ci xam dara et puis la surveillance moo des nga une fois que euh, l'école les cours sont donnés moom c'est un c'est boo xam ne chaque jour chaque fois ñu ngi koy def ci kii bi yi dañuy gën mën a impliqué wu quoi dañuy gën mhm. xam nga problème bi dafa am souvent gis nga ñaari série donc damay rappeler rek damay rappeler gars yi qu'ils peuvent appeler au 88 628 vingt 05 88 628 05 cinq moo gën ngeen di woo Assane nii rek quoi <laughs> di ko di ko sonal <laughs> voilà woo leen directement ci kii bi euh, ci serveur bi après on va on va xam nga xam nga souvent mm-hmm. xam nga souvent monsieur Ba euh, boo boo jël suñu école ñu ñaari série lañ am mm-hmm. série S mooy la série scientifique mm-hmm. série S am na S1. S1 s euh, euh, fa la coefficient yi gën a mhm. magee. Euh, S2 fa la coefficient yi xaw a moins moindre. Mhm. léegi am nañ L. L l mooy langue yi. Mhm. am nañ L L L2. mais da ngay gis yi bu ñuy jógee troisième xam nga dañuy am benn moyenne. da ngay gis élève bu am moyenne douze mais moyenne douze mu am noonu EPS moo ko may moyenne EPS au moyen du coefficient deux la. Ecofam bale techno. coef 102 la. léegi ci élève bu am moyenne 12. or élève boobu profil am 10 la. profil am la. et les parents après euh, après orientation ne ne suma doom dafay nañ ko orienté L. te euh, te ñu mu ngi orienté orientation compétence su COSPE la. voilà COSPE mooy centre d' orientation. scolaire professionnel bu nekk euh, Castor. ñooñu mooy am lu ñu soxla appelle les conseils psychologues. parce que foofu foofu la ñu yóbbu na kii résultats yi résultats yi fa lañ koy yóbbu. ñooñu ñooñu boo boo boo defee. Ah demande non non dañ leen di yóbbu foofu. d'accord parce que élèves bu nekkee mu ci condition jàll euh, seconde. am na neuf cinquante plus BFEM. Mhm. il orientable. Mhm. Euh, bu amee dix. san BFM il orientable. Mhm. léegi euh, école bu nekk dangay jël sa sa candidat dugal leen ci benn euh, benn su bi nga wax seen orientation. Mhm. moom mooy dem la commission dañ njëkk a daje euh, au niveau EF. E e mhm. après ñu envoyé au niveau. Euh, régional. Uh-huh. Euh, COSP moom. Uh-huh. les COSP moom mooy gérer enseignement général. Uh-huh. mais quand euh, enseignement technique. commission nationale moom mooy mooy Dame Diop. ñooñu ñoo koy ñoo ñoo koy gérer ñoo dañuy orienté. noonu lay demee. noonu lay demee kon actuellement sax ci nga élève bu ñu orienté da ngay ñëw ak sa yéen yéen boobu la ñuy jël rek. dugal ko defar sa defar sa bulletin amul dara lu ñuy créer léegi. Mm-hmm. parce que c'est un grand euh, euh, innovation bu baax la. voilà l'élève même l'élève qui qui est orienté à Kaolack qui a bu ñëwee indi dossier am. Mm-hmm. monsieur Guèye entre dans Euh, IN dugal INM bi l'élève est dans notre circuit mm, loolu la de ce fait y a une transparence c'est ça indi koo xam ne nekkul dans de condition la mu dugg ci liste yi léegi vraiment c'est quelque chose à saluer que léegi vraiment ñu ngi indi ñu ngi paramètre ba nga xam ne léegi affaire yaa ngi gën a gën a gën leer euh, vraiment loolu la quoi mais orientation yi moom day am problème dans dans les moom ba léegi élèves yu bëri dañuy am dañuy am ne conditions yi duñ leen duñ leen kii te loolu droit la l'élève tu dois le proposer à l'orientation suñu la ba suñu la bu demul moo xam waaw mu demee moo ñëw kon a c'est le c'est un combat des parents d'élèves ñun suñu yoon man eh, oh, oh, oh, yi pour voilà ñu man je ne fais que leur dire souvent ba di ñëw ma dimbal leen dem yóbbu leen ci COSPE monsieur Kébé et taal vraiment ils sont mm. après il y a beaucoup de parents après les orientations ñu ngi leen di dimbale on les ñoom vraiment euh, euh, ils sont sensibles aux aux difficultés que vivent les parents surtout en ce de pandémie où les ressources sont rares vraiment ñu ngi def lu bëri pour jéem a def loolu pour jéem jàpp ci orientation. voilà c'est ça orientation élèves yi voilà. voilà c'est ça. Euh, donc fi moom leer na donc euh, li ci des mooy inspection après euh, après j'ai vu que monsieur Guèye peut-être sëñ Mbacké. Ah. di leen woowaat pour di leen xale yi ne orienté woon foofu après mu. oui oui oui il passe dafa demandé ku nekk yóbbu na la fu la arrangé xam nga ah, yi dañuy wax Dakar boo doxul amul kenn kuy dox. kon reen yéen neen amu leen sixième même les même euh, yi redoublant yi sax dañ leen joxaat gars yi parce que redoublant bi xam nga redoublant yi dañ leen joxaat yëpp mais en terme yéen naru leen yéen dindi non non premier ah, cycle terme à loolu lañ bëgg parce que parce que ah, bu buñ buñ mënee am euh, classe bu nekk classe kay moo gën parce que déwén parce que normalement déwén doo leen am. doo leen am cinquième encore. duñ am cinquième waaw ak sixième ak waaw ak sixième voilà. ah voilà ci logique boobu ngeen. bon bon bon bon loolu sax doole la problème bi. oui mais non non mais. doole problème bi dina amoo indi. dina amoo indi affaire parce que sa école tu as des classes fermées man on je n'ai pas ça parce que les gens peuvent non non il y a de bâtiments mais booy mënuñ dem Dakar. xam nga xam ko mënuñ dem eh, Dakar eh. xam nga ñun bu nekkoon dañ ne élève dañoo jël li ma dak booy dem Dakar loolu amul mais ñun ñoo censé booy de xam ne ñun fi leen dëkk dëkk eh. man xam naa booy fu ñuy dem hmm. xam naa bu benn docteur génnee wax soo ko ne xam nañ fi xamante nañ bu baax xam nañ ne affaire bon métti na bés na parce que mën nañ ko ñàkk a def mais itam dañ foogoon ne mu lee mun na nekk ci cas produit contraire ñun yaakaaruñu sax ne dañ def parce que est-ce que fu ñu def autorité bi moo trouvé ay palliatif yu mu ko yu mu ko réglé ñun on appelle des des deux mais neexuñ yi ah. boobu euh, élèves yi dem parce que élèves yi dañu am fu leen dugal parce que mënoo am mais nag seen vocation yéen aussi c'est c'est le second cycle quoi c'est pas le premier cycle voilà c'est ça c'est le second cycle en réalité c'est ça quoi c'est ça c'est-à-dire que dañ ko doon def noonu pour arranger euh, situation xale yi voilà mais en réalité yéen seconde première terminale nga war a voilà voilà c'est un lycée donc il faudra aller il faudra aller vers ça oui même sax boo xoolee sax suñu gestion école bi c'est hybride Pour le BFM, on dépend de, de, de, de l'IEF. E pour le BAC, on dépend de l'IA euh, euh, et euh, des ministères moo tax xam nga lu ñuy wax rek sénégalais dafa doy waar yow mënoo am cenu 2 kilos ñu ne ñu ci fukki kilos <laughs> xam nga loolu xam nga gars yi nga xam mais ñun tam. amuñu vocation gën di yuuxu ay enseignant lañ enseignant lañ gëm xale lañ gëm xale suñu doom lañ duñ causé kenn tort mm. te gars yi fay wax dëgg ñu ngi fi ñun dañuy ñëw fii ñi ñi seen doom yi ñu mm. ñuy yóbbu Lamine Gueye ñu leen di dugal si école bi waat te amuñ place mm. kuy wax waxal sa yàlla xam ne ah li ma dag on gère le sociale on gère le social Euh, am na ñoo xam ne dañuy jóge sax dë euh, ñëw def une année Lamine Gueye si Diagne ñëw ñu jël leen si condition de vie parce que parents yi souvent parents yi dañuy topp seen désir doom yi yóbbu seen doom yi on fait de de nos mieux te day fees sax ñuy jël mais euh, xam nga ko kuy jël kañ bon Euh, am na école yi bon accueil bi accueil li ma dag est-ce que c'est boo fa ñëwee man maa ngi fa man je défends les gens dès que c'est possible nag on on mais nag mënoo jël loo xam ne nag amoo foo ko dugal amoo foo ko dugal amoo foo ko dugal non non c'est loolu la loolu léegi dañuy ñëw ci ci beneen volet sunu émission bi mais quand même balaa loolu damay aussi rendre hommage c'est vrai à ces braves dames mm qui gèrent les, les mm-hmm. au à, dans la région de Dakar mm -hmm. la plupart des lycées aujourd'hui sont gérés par des, par dames à l'image de, de, de votre école Koumania donc à qui on rend hommage mm-hmm. au lycée Lamine Gueye c'est pareil bon y a beaucoup de lycées comme ça aujourd'hui qui sont gérés Padoua, Padoua lycée de la Padoua, qui sont lycées donc voilà c'est Wakam lycée de Wakam. Donc voilà, ah, ah, ça, ça, ah. ça, fait, ça fait quand plaisir. Et mhm. le changement, il est dans le, dans le bon ordre, quoi, dans le bon sens. Mhm. Donc euh, yàlla na yàlla def jàmm. Mhm. léegi dañuy ñëw ci inscription yi Assane. waaw oui. bon xam nga inscription yi. waaw. le décret dit que l'inscription euh, doit être s'arrêter à à neuf mille. à neuf mille yi moom moom lay répartir. entre ce que doit prendre euh, le euh, gouvernement scolaire gouvernement scolaire ah parent de euh, comité de gestion comité de gestion ak fonctionnement xam nga un comme kii li ma tak ñun dañoo dañoo am subvention bu ngand mais neuf mille wala waaw waaw état état bi dafa subvention subvention parce que su ko nam boo xoolee boo demee li ma tak on a des machines ay scope mais dañuy panne à tout moment entretien ak encre. machine mais yéen courant. courant c'est la mairie qui paie. c'est la mairie qui ah, c'est la mairie qui paie. la mairie qui léegi boo xoolee li ñuy wax ni gars yi lii mooy volet pédagogique bi. Mhm. laneen li man man man. 9000 euh, waaw 9000 je dis une chose. waaw man laneen li. Mhm. on demande 5000 francs pour tenue ak ak ak mbubu. Mhm. pantalon ak chemise. 5000 francs pour tenue. sport muy dix mille francs man man man Assane Ngaye su ma doom lu ma si jaay yëre man nag cinquante mille pour su ma euh, ñett doom mm-hmm. kon bu xale bi di jàngee bu bu nekkee école bu ubbee yow nga am tenue élève bu am pendant toute l'année scolaire mm-hmm. nga dépensé dix euh, dix mille pour mu pour mu tenue pour mu koy jàngisee mhm. dañ la arrangé c'est une chose boo xam ne l'état tolère parce que xam na ne c'est tout le monde mhm. xam nga école boo bu euh, dafaa nekk mais mais mais mais mais ci tenue yi ci tenue day defar ay tenue non euh, te xoolee ji nga lii lu nga gis nii lii nii cinq mille bi boo xasee boo doogee sixième am am maillot blouse doo ko jëndati kon kon ñii di ñu ñu ñu. c'est les grands commerçants voilà les grands commerçants. Mhm. seconde ak ak si sixième amatul ren ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy jënd euh, teni teni boo ko amee benn blouson moom laa sol ni tey sax mhm. xam nga blouson bii du yàqu blouson boo xam non non kii kii <laughs> mënta yàqu kii mënta yàqu kii kii <laughs> non kii da yàqu pour vous dire léegi ko kon li ñuy wax yëpp eh. euh, l'inclusion bi quatorze mille la quatorze mille nag vraiment l'éducation à un prix dañuy wax économie publique mais non attends ren xale ñaar la ñuy cirrhosé rek. lii la li ma la wax nii. non gars yi waxuñu loolu de. gars yi nañu gars yi nañu même tour 25000 la. non non non non non. si si non non non. ah déedéet ah. non non non non non xoolal. loolu la ñu wax de. non non 25000. xoolal ah. déglu ma déglu ma déglu ah. ma. gis nga ñii boo defee lii xam nga da dox 20000. waaw terminal yi ñooy ñoo ñooy fay 26000 parce que ñoom dañuy fayale bac. dossier bac waaw d'accord naa d'accord naa dossier bac. waaw 18000 yu gars yi dafay boo ci génnee lii 12000 la ñoom ak ak 2000 francs loolu la je peux je peux te montrer euh, euh, affaire bi c'est c'est bien réparti loolu la gars yi lu ñuy wax da dañuy wax. xam nga ah, li li dafa non yéen nag yéen def lu tax gars yëpp di daw ñëw seen école nag mais seen école yi vingt cinq mille la trente mille quarante deux mille sax non ñun loolu duñ ko ñun nous sommes dans une zone ba dala banlieue ñun ay pendève lañ man pendève laa mhm. man sax man sax ba ko lu bees sax day métti ci man fii képp kuy wax l'éducation a un prix munoo ne sa doom day jàng et puis dañuy wax man yow euh, Mamadou Moustapha hmm. nga am ñetti doom nga ne dañ la dañ la sonal ñu tekkee nekk ay ministre di la jox ay xaalis ñun ñun ñu bëri ñoo ñoo yóbbu seen papa ajjana boo amee doom yi tekki ñu lay jox ngay jaamu yàlla man am na para noonu je crois ci yoo xam ne ñoom dañuy ci boole ay wes. waaw ñun nekkuñu li li si boobu wes boo boolee wes mais mais ñun ren sax lakkatu lañ joxe ak ak pantalon bala sip. Mhm. loolu vraiment boo ko boo ko amee gis nga lii lii. Mhm. lii ñu jaay la ko cinq mille cinq cent. yi mhm. nga léegi lii. xam nga lii c'est rien du tout. Ah, ki kii kii boo ko te qualité la. non qualité la boo ko boo ko boo ko gindee ci marché bi sax doo du am loolu moo tax et sax soo si xam nga loolu euh, nekkul décision de l'état d'état mais ce sont les parents d'élèves ki qui sont qui instituts autonomes mm. qui participent à la laboratoire qualité ñoo ñoo décidé ne nañ nañ def li mu engrais ñëpp mais nag wuyma wuyma waaw waaw léegi yéen xaalis bi ngeen di jël cii bi est-ce que dina dina euh, en tout cas ça dina doy pour seen fonctionnement buñ ci boolee subvention état bi est-ce que bu école tëj yéen di ngeen am tous les moyens yoo xam ne soxla di ngeen ko soxla pour seen école bi dox non du kii parce que boo xoolee ñun suñu école bi mbir yàqu na même léegi sax école même gars yi sax dañuy violer euh, code bi parce que école amul amul vocation jënd table ba mais ñun ren jii. mais boo leen jënd table ba xale yi dañuy dañuy toog. mais non non euh, daaw. y avait un moment. boo leen waaw boo leen jëndul table ba boo leen jëndul table ba yéen seen yéen seen xaalis daal leen di jëriñ. non y avait un moment d'humeur mhm. des des professeurs parce que il demande que à ce que. ñuy jënd ay euh, machines yu baax. connexion internet am na bu ñu am état bu joxe mais mais xam nga yooyu ce sont des choses très très chères. yoo xam nga encre. lu lu muy jar waxuma la fonctionnement euh, école rek euh, xam nga ñun suñ classe yi support pédagogique yi prof mais dañuy tiire imprimante yi dañuy day tirer lithographie yi day tirer boo boo fa nekkul rek doo xam. doo xam papier dafa seer. dafa seer parce que xaalis bi budget bi bi ñuy am. bu njëkk tane woon na mais depuis Mbaye Thiam dafa euh, dagg budget ba léegi école yu bëri euh, léegi maintenant tu es au lycée tu verras que on a des problèmes de de de de servir. Mm-hmm. Euh, loolu la mais xam nga problème la mooy Sénégal xoolal duñu wax kenn dara yenn secteur gars yi xooluñ añ fa droit regard mais enseignement la ñëpp am regard te foo enseignement dañ la war a jox cër fa ñëpp mm-hmm. amee intérêt. Mm-hmm. man mii maa ngi fii suma doom laa yaakaar mu ngi jàng. ku ko jàngal naa ko ko yaa ngi sànni xel enseignant yi ñuy wax <laughs> te pourtant milliards yaa nga pale kenn waxu ko. Ah. milliards milliards yaa nga domaine kenn waxu ko. milliards yaa nga ah. <laughs> euh, euh, euh, yenn service yi. école ah. am <laughs> yàllaa fa am dama la wax benn jour deux deux deux deux gis nga après tabaski. Uh-huh. ñaari fan laa tabaski delsi uh-huh. pour préparer mes candidats de bac. mais loolu tax naa ki taxawaat parce que léegi dañuy imposer dossier bac yi na ko profil signé. Uh-huh. voilà apprécier ko. c'est ça gis nga ren jii man dama tabaski deux jours mbuur ñëw. ajjuma euh, samedi maa ngi fa fekk benn prof boo xam ne ancien la ma gis ko mu ñëw di jàngale S1 ma ne ko mais doyen yow luy def fii mënoo dimbali xale yi rek man j'ai appelé un de mes ñoo nekk foofu pour defar bulletin yi fa lañ nekk ba vingt heures le dimanche la beneen daam bi ñëw commencé ko jël bulletin dagg ko def ko ci dossier bag yi les profs sont venus samedi euh, lundi xam nga il est parti le mercredi gis nga ren am lu ñokk nii am na prof yu bëri yoo xam ne sax euh, laaluñu affaire man gis naa école bu ma ko tudd tam école bu mag Sénégal boo xam ne amuñ élève euh, euh, kii ba rempli luñu ko mhm. élève boo xam ne dafa jógee benn lycée du ma ko wax lycée bu extant bu muy ni leen benn benn benn dossier am boo xam ne amul dara benn appréciation mu incomplet ma ne mais ñun dañ ñoo yàpp parce que ndeke man ndeke ñun <laughs> ma ne ñun dañ ñoo dañ ñoo yàpp ma ma ne ñii ñi dañ ñoo yàpp man j'étais dans un jury am na du ma ko wax mhm. mais am na am na un pénal jury boobu nekkoon fii par LPA mhm. il a révisé beaucoup de dossiers de bac du booy ne si yowuñu ko parce que mais parce que léegi tout est tout est numérisé maintenant. c'est ça tout est numérisé maintenant léegi kenn mënut a falsifier dara. Hmm. parce numérisation mënoo ko laal ah. Hmm. parce que léegi sax même semaine dafa am dossier bac. est-ce que léegi man duñu proposer sax école yu am semaine. que les gens aillent voir le dossier par rapport à semaine. Hmm. parce que semaine bu toog bon peut-être que logiciel la mais par rapport à ça. Euh, booy mu nañu ko xool foofu xam nga loolu loolu du amati benn affaire. Ah. leen boobu noti mënoo ko mënoo ko kii. waaw day transparent mais xam nga ñun dañuy avancer mais duñ ko topp. dossier bac bu njëkk mënoon na nekk papier mais léegi tous les gens man te boo duggee suma logiciel bi mais nga gis Assane Gaye année yëpp yëpp yëpp a nga fa. Mhm. kooku kenn mënu ko falsifier kenn ko falsifier peut que bon bu ñu demee bu ñu demee ba semaine bi programme pour les ba ñëpp def ko mu leer mais mais ay temps le temps matériel dafay yàkkamte parce que xool yow tu as tu tardivement. ay temps le logiciel dafay bëggee. Mhm. bu ko dugal say notes. Mhm. man daaw presque euh, notes yi yu bëri guddi lañ koy dugal. Mhm. guddi nga yeewu di ko dugal trois heures du matin ah. <laughs> parce que euh, euh, parent mën a comprendre moom amul bulletin doomam te xamul ne c'est un problème technique. xam nga honnêtement comme comme kii la comme autoroute bu feesee rek bloqué. kenn kenn du dem te xam nga ñëppay composé ñëppay demandoo. ay temps da ngay problème. surtout avec avec xam ne. voilà avec avec voilà avec la ah. ñun. Ah. dafay dañ koy defandoo yëpp yëppay parendoo prof yi dañuy am problème pour koy seen seen feuille yëpp dugal te élève booy élève booy jaawale benn un deux am mu taxawu la c'est ça bu même bu ñu jotoon prof bi buñ nekkee prof bi dem sax yow lay ñëw yaakaar ne yow yaa ko yaa ko def te yow sa yoon nekku ci dañ wax dama leen wax benn affaire ñi nga xam ko administration bi noonu yooyu yoonam nekkul ci note prof yi ñoo dugal seen note ñun on que on fait que générer et mettre les appréciations ce que le conseil de classe mais même les appréciations sont données par, les, par les, la par conseil de classe, mm -hmm. qui est souverain, mm -hmm. qui est l'autorité compétente, qui est compétente pour donner une décision. kii mm-hmm. euh, nag xam nga ñun lañ man mm-hmm. ah euh, am élève bu yaru bu ñu bu ba doon dàq. Mhm. ñi ñi ñi demandé euh, ak conseil bi daf ko redoublement associationnel. Mhm. ça social. c'est ça mais à part ça. les décisions sont des ressorts pédagogiques surtout du conseil de classe. Mhm. souvent les parents viennent te dire dimbali ma li te yow koy dimbali jàngale woo. waaw nekkoo ci nekkoo ci. non non non il faut mu xaw leer tuuti. c'est ça c'est un peu difficile. c'est ça mais c'est ça. Assane euh, vraiment su waxtaan bi neex na. waaw waaw mais je hmm? pense qu'on va il faut qu'on revienne. waaw waaw que problème yi waaw waaw. te eh, li ñu fi wax moom eh, waxtu bi jeex na. waaw waaw. te mhm. te on n'a pas on n'a pas. épuisé le sujet waxuma waxuma syndicat ah. léegi non non syndicat dañ koy. Ah, bàyyi dañuy koy bay bu beneen yoon. waaw waaw léegi dama lay bay rek nga nga tàggatoo. par rapport ak benn chose boo xam ni peut-être ça vous tient à cœur. voilà voilà nga wax ko. je fais coucou à tous les enseignants. du ah, ah, Sénégal mais à tous ceux qui sont dans l'IEF de Parcelles Assainies. mais aussi à tous les enseignants di du lycée. Euh, Sergent Malamine Camara. Mm-hmm. donc euh, maa leen di ñoom ñëpp. di ci mm-hmm. xalaat surtout sama sama sœur sama nièce. <laughs> Uh-huh. muy Aïssatou woon. prof d'anglais. Uh-huh. donc je pense à à celle-là et puis à tous les enseignants donc Assane tam lay bay. voilà maa ngi lay gërëm Moustapha si invitation bi. di gërëm waa Afia suma rajo la quoi. Mm-hmm. vraiment c'est une. Euh, occasion boo xam ne day nga wax ak population bi ñi xam yu bëri xam nga gars yi duñ ko xam di remercier suñu suñu proviseur Koumba euh, Niang c'est ça qui est très engagé mu ñëwee ba tey mu ngi ne innovation yu bëri mm-hmm. euh, defar na bu mu bu ñu bu mu ñëwee école ba amuloon amuloon ay Fred defar na ko. mu ngi euh, taalibaan yi mu ngi ciy def effort yu bëri. mais on dirait que jigéen ñi ñoo gën moom oh, topp jigéen ñi moom euh, ko yor quoi. <laughs> waaw waaw que ñoo ko loolu laa dégg loolu di euh, wax. ko yor voilà moo fa moo na sens bu jigéen la woon dem na Gorée. Mhm. mais y a initié un jeune enseignant qui est venu au nom de monsieur Assim Ndiaye qui est mhm. très compétent. qui a pris le relève de avec beaucoup de courage courage avec beaucoup d'engagement il aussi tam notre intendante qui est aussi femme mm-hmm. madame euh, Sow mm-hmm. et aussi il y a madame Diémé qui est le euh, comptable matière c'est ça il y a aussi tam je rends hommage à Doyen Ndiaye qui a fait 14 ans à l'école mm-hmm. euh, qui a qui m'a formé parce que je l'ai trouvé là-bas il a été très avec moi il m'a guidé dans mes premiers de suivants généraux Et il y a M. Kone Ako qui est là, il y bi un certain Sané qui vient, qui vient d'arriver. Mm -hmm. Et vraiment, euh, l'école est bien organisée. Parce que c'est l'enseignant, il y a M. Cham qui, qui les dirige, il y a M. Dien, tous les, les profs sont très engagés. Euh, vraiment, euh, c'est une famille, hein. on dit que c'est une famille. Bon, faut ça. Et les gens, nous faisons matin et soir, les gens ont fait des clans, les gens entrent, sortent comme. comme ils veulent. vraiment et aussi je vais continuer par remercier aussi suma collègue enseignant yëpp fii. surtout mes, mes, mes collègues et partenaires d'ICELS. Mm. Mm-hmm. Mon j'ai Saher Sen qui est là, qui était dynamique. Et ma soeur, euh, petite soeur euh, Aminata Sarr, voilà. qui vient d'être premier SG ICELS. Nous sommes fii di dimbale gars yi. Mm-hmm. ñun fii on fait en sorte que ñëpp nekk si jàmm. Mm-hmm. lii euh, li ma dag ñun ñoo ko moom. suñu doom yi fay ñoo fa nekk sax di kii kon ñun amuñ benn intérêt. sëñ Mbacke même si laa voulu amener les gosses parce que moom tam dafay xalaat ne booy bu dafay xañ sori. xam nga école tam école tam dañ dañ bëgg mu jege mais dans dans devant. dans l'impossible. personne n'est nul n'est tenu. Euh, vraiment on remercie tout tout le monde. tàllal seen loxo nañ fexe ba seen doom yi réussir. Mm. mooy suñu credo. mooy suñu vocation ñaanal ñëpp année bi ñu démarré nii xaw na difficile nag avec péripéties yi euh, euh, dugal classe yi génne def euh, exercice yi. Mm-hmm. mais on y est on croit éducation de qualité. avec surtout avec les phares qui qui qui benn piste boo xam ne dafay indi qualité. lépp lépp dox je vous remercie infiniment de mm-hmm. l'invitation monsieur Ba. merci beaucoup merci monsieur monsieur mm-hmm. c'est toujours un plaisir de de vous recevoir à ce plateau. je dirais à, en tout cas à toute l'équipe pédagogique et au personnel administratif du lycée Sergent Malamine Camara que cette émission est une tribune qui leur offerte. Donc, euh, chaque fois de besoin, en tout cas, ils nous trouveront et on les accompagnera par rapport à sa en tout cas pour, pour le meilleur devenir de l'école sénégalaise. Donc, euh, donc ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu di nuyu. mooy jabaram ah, bu ko fàtte naa doole. <laughs> <laughs> voilà c'est ça. <laughs> Ah, gars yi ah. ak ay ganaar yu may jox may lekk quoi waaw gis nga ah voilà am xanaa sayer ah, moom du lekk ginaar non sayer am na seetaan bu war <laughs> <laughs> lekk ginaar parce que ay benn tukulóor lañ ko jox quoi ah benn tukulóor bu baax lañ ko jox léegi nu ñu ganaar en tukulóor nu ñu koy ooyee gertu gal c'est ça c'est ça donc merci beaucoup merci Assane ñu ngi nuyu gars yëpp di di leen ziare ba beneen émission incha la les bancs de l'école sur les bancs de l'école di jataay bu ñu jagleel njàng meeg njàngale meeg tàggatu gi ci Afia FM ngeen di ko am alarba bu jot ñeent jàpp juróomi wax sur le bancs de l'école di jataay bu ñuy waxtaanee mboolem jafe-jafe njàng meeg njàngale mi.